nañ ci xolu Sénégal Tambacounda Vélingara fi ñu nekk ci Maam Fatim jëm Kolda ñu romb ñaari région yi nga xam ni muy région naturel du Sénégal oriental ak région naturelu u soo ci boolee région naturelu u fleuve mooy ñetti grenier wu Sénégal su Sénégal bëggee développé dana leen développé yàlla may na leen lu ne may na leen suuf su baax may na leen ndox may na leen ay ressources minières ma bëgg nag bi ma egsee fii fekk leen nag ñuy nit ñu bëgg liggéey ñu sopp liggéey nga xam ne li ñu bëgg rekk mooy seen àq ak seen yelleef ñu gën leen ko dooleel may wax ni dekkal mbay fii dekkal sàmm fii dekkal napp fii mooy tax Sénégal di dundal boppam di dundee boppam xalifa Sall président la République day jël engagement ni ñetti région naturelle yooyu da leen def locomotive u développement Sénégal mais muy doon région frontalière ma di rendre hommage les force de défence et de sécurité yi nga xam ne ce sont les garants de l'unité nationale su jàmm nekkee suñu réew su nit ñi nekkee seen aafiya ñooñu la jàmbaar yooyu nga xam ne suñuy nelaw ñoom ñu ngi yeewu ñu tëddee ñoom ñu ngi dox su ñu toogee ñu ngi ci li leen war mani le Sénégal ne une république et une nation unie calme sereine et que par la qualité de ses FDS on leur rend un hommage permanent mais dëkk bi doon nag grâce ñooñu ñu juboo ñu déggoo ñu nekk ci jàmm moo tax defar nation fexe ba le vivre ensemble doon une réalité doon ñun li ñu safoo parce que président la république mooy chef supérieur des armées et moom mooy kii fasale buumu xolu nation bi il faut que mu doon koo xam ni da koy mate da koy jëfe da koy nuroo xalifa Sall président la République sera le garant ferme de l'unité nationale de la cohésion nationale faire en sorte que sénégalais bu nekk doon sénégalais entièrement à part su la neexee nga doon à part wante di nga bokk dinga dinañ la boole dinga nga yëg sa bopp ci li ñu ànd ma ni réew daal day am kilifa te kilifa da koy mat doxal senegal daal mooy fexe ba Casamance senegal oriental fleuve nekk benn liggéey ngir jàmm ak teraanga ak naataange dox ci réew maa ngi leen di